auzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal xaq tey ñaan suñu borom boo leen jégal boo leen gisee jataay bi nga xamante ñu ngi ko amalee kër soxna Awa Fall Touba Bambey Baye soxna jaara ànd kook ndaw yi nga xamante ne ñoo dëppee seen bopp ndawi Sëriñ Saaliw lënkaloo ngir liggéey Sëriñ Saaliw ci liggéey nga xamante day am xel kom rawatina muy ngóob mi ak mbàcc mi buñ tollee fii nag xam na ne xel yëpp mi ngi jëm ci le 25 novembre tombeeg bis bi nga xamante ne ci leen wala tàmbali liggéey bi nga xamante ne moo aju ci mbàccum Xelkom mi aju ci mbàcc mi aju ci njëri mi aju tamit ci roñ gooñ mi kon jataay bi loolu rek moo ko sabab ñu fas yéene fàttalante lu jëm ci bis boobee soññaat mbokk taalibe yi nga xamante ne ñoo bokk liggéey bi ak mbokk soxna yi nga xamante ne ñoo baaxoo ànd ak soxna awa ci liggéey bi ak tamit ndaw yi nga xamante tamit ñoo fekk soxna awa ngir fas yéene ànd ak moom ci liggéey bi. waaw ah, képp koo xamante ni yaa ngi ci biir bambay wala nga nekk ci biti Bambey masa dem xel koom rek te jaare ci moom xam nga ne jàmbaar la xëy na ñu ci bëri ci ñun ci moom lañ jaaree xam luy xel koom ci liggéey si Serigne Saliou boobee ñu gis coono yim ci ciy jànkonteel ak ak lépp xam ne suñu yaay la pare mën nañ ci li mën ñu ci liggéey bi fopp ñun nag ñu gis ne xëy na di ànd ak nit dem ba gis ci no xamante war nga ko mën jappé ci liggéey bi tamit ay murid ñu nekkat nañu tok waxtaan ko défé and ak mom liggéey bi kon mbolo mi gannaaw bi nga xamanteni ni na mom ay yooni yoon dem xel kom ci njitam mom soxna wafal ñu bayiko ko muy weyel ñu bayiko muy weyel ba nga xamanteni dem nañ ba gis ne wax deug fa yalla yalla na te it du war la ñu toog ŋànk liggéey bi ànd ko moom teggil ko yu bëree bëri bëri ci noonu ci lañ waxtaanee daaw bi ñu jógee ci mbàcc mi ci mbàcc mi ci lañ kon waxtaan waxtaan yu yaatu ñu ne dañ doon waxtaan rek di bàyyi noonu waaye nañu toog def jataay bu ko defee def ay réunion waxtaan ci nu ñuy taxawalee ndaw yi Serigne Saliou ndaw yi Serigne Saliou nag bàyyiwut kenn génnewut kenn. ñëpp a ci biir muy góor yàlla di soxna ngay mag ngay ndaw ndax bu nee ndaw bawuñu ci képp ko xam ne yaa ngi ci Sëriñ ñu ñun ñëpp ndaw yi Sëriñ Saaliw lañ kon képp ko xam yaa ngi noyyee Sëriñ Saaliw ñu ngi lay woo ci liggéey bi ndaw yi Sëriñ Saaliw nga ngay góor ngay jigéen ngay mag ngay ndaw. kon xam naa ni nga xam ne noonu la ko sëñ maam Cheikh Anta waxee borom gaawan pàcc bi nga xamante ni moom lañu féete woon ci liggéey bi. muy lu jëm ci li nga xam ne moom mooy addee yi nga xam ne moom la ñuy dajale ngir jëmmale ko bis ba ndax bis ba am na jëmm ba noppi waaye kenn ku ci nekk xëy na du ñàkk ni nga xamante ni noonu la war a am murit sëriñ bi bind ko muy lu leer mu ne war na ci murit bi mu melokaanoo ñetti melokaan yi tax ñu koy wooyee murit saadi muy ma ku ne xam na ne xel koom ku fa dem liggéey moo la fa yóbbu beneen bi ci des mooy bëgg sab sëriñ bëgg sëriñ bi moom daanaka firndeel jataay bi dana ko firndeel waaye dem nga ko firndeel ba ca des nag moom mooy hadiya hadiya jooj nag ñun foofu lañu ñu féete muy ñu koy tënk mbooloo mi ci euh, tënkin woo xamante ni ak nosu muy ay barkeel yoo xamante ni mbokk taalibe dañ koy faral def weer jot ginnaaw ba ñu xamee ne Xelcom ji kat am na taxawaay buñ ci war a am bu weesu takk suñu saak dem mbokk taalibe yi di faral dajale seen i seen di ko def ci jotaay bi sag weer wu nekk kenn ku ci nekk am ci loo xamante ni xëy na moom la mbooloo mi tënk nga war loo ko ak li nga xamante ni moom mooy wàccaayu mbàcc mi loolu nag xëy na ab tàmbali ci lañ nekk waaye néewuñu ci doole waaye néew nañ ci doole mhm. ndax néew gi doole mooy faj suñu yéene toll moo rëy mhm. waaye jëmmi xëy na néewuñu ci doole mooy nit ku nekk la nga am rek ngay demee marché mhm. ndax euh, kenn ku nekk xëy na euh, sëñ sëñ bi xamuloon lu bëri loon lu néew waaye li mu xam mooy pas-pas waaye ku ne xam ne pas-pas yi nekk na fi waaye xëy na doole ji nekk fi yal na suñ tubaa def waaye ci kaw loolu it ñu ngi woo képp koo xam ne yaa ngi dégg suñ kàddu muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen xamal la ne ndaw yi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw yi Serigne Saliou yu nekk fii ci bam Touba Bambey ci ginnaaw soxna Awa Fall ànd wàccaayu mbàccum xel ko mi ñu ngi tàllal loxo képp koo xam ne taalibe nga waaye képp koo xam ne ab jullit nga it lépp loo xam ne mën nga koo jàppe ci liggéey bi ñu ngi la ciy tàllal loxo ngay autorité ngay nit koo xamante ni xëy na ku bëgg sëriñ bi nga ngay koo xamante ni xëy na ku suñ boroom xéewale la waaye xeebuñu waaye yéemu it ndax sëriñ Saalifu Mbàkke daan na wax ne addiya fa mu jógee bu fa bu dara fa mu jëm du jariñ dara waaye daan na wax ne addiya it am na solo lool ndax fa mu jëm fa maanaam addiya am na solo lool ndax bu fe day fekk foo xam ne dara nekku fa mu def fa dara waaye day fekk fa dara nekk mu ful ko waye day fekk fo xamne fu bari la mu barkel ko kon ñett yoy rek warna tax nit ku nekk mëna jël sa ñak joxe ko ci addiya te dañ sëriñ bi daan wax ne it addiya ko dugal fo fo nga xamanteni fa la ko nit ke jëmele foofa la sa xol jeng jëm kon mu melni jël sa addiya joxe ko ci li nga xamanteni mom moy mooy Sëriñ bi sa xol jeng di jëm ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi sa su ne tawféex foofu la daje tawféexu àddina ak àllaaxira foofu la daje kon ci kaw loolu ñu ngi ciy soññu mbokki taalibe yëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir euh, fondation yi mooy ndawi Serigne Saliou yi xamante ni engagé woon ñu ngi leen di soññ ti leen ñaax la nga xamante ni moom lañ jaayante woon ak Serigne Touba nañu ko matale ndax dañuy faral di wax ne lépp Serigne Abdoulaye daan wax ne am murit lépp lu mu xas a jaay moomatoo ko lépp loo jaay te yaakaar a jot ci njëggam moomatoo ko te lii dañ koo jaay yaakaar a jot ci gi kon nañ ci dox yitte jëm ci góorgóorlu ci bu baax a baax a baax lépp luñ ci jëfit doyut ndax yoon wi moom eh, daanaka kenn du fi eh, naw dara waaye kenn du fi xeeb dara ndax Cheikh tu eh, Touba waxoon na ko borom Touba waxoon na ko Cheikh Ibrahima Fall daan ne junni bi ak dërëm bi amuñu wuute fi ndax pas-pas borom dërëm bi boobu dërëm ba Cheikh Mat si Ndongo moom amoon dërëm ba kon mu mel ni yéemuñu waaye tamit xeebuñu waaye tamit lépp lu waaye jëfal sëriñ bi sëriñ bi moo lay fayal boppam. te di soññe bu baax a baax mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo nekk si. soppee Serigne Saliou tey waajal liggéey bi bu baax a baax nag danga xam ne ne dañoo war a xare ji te koy xare ji da ngaa war a waajal sa bopp bu baax ñu leen si soññ kullu bàyyiñ kenn kulim ju daanaka mën nañoo ne mbokk taalibee yi nga xam ne ñoo gëm sëriñ bi ta nekk biir Bambey ñoom ñëpp ñoo ngi leen si woo te sëriñ bi dong tax nag képp koo xam ne yaakaar nga ne liggéeyal suñ Tuubaa mooy sa yite ñoo lay woo ci liggéey bi di ci woo képp bàyyi wuñ kenn. asalaamaaleykum rahmatullah mbokki jëlee di mbokki taalibe ñu ngi leen di ziar bu baax dafa mel ni li motoon wax lépp suñu kilifa yi wax nañ ko ba pare xanaa ñuy soñu suñu bopp rek di soñu suñu mbokki soxna yi ñi nga xamante ne ñoo ñëw féete ci waa wàllu waañ bi ci euh, kàddu gi suñu yaay soxna Marie Diop mi nga xam ne moo ciy suñu jëwriñ ñu ngi leen di fàttali mbàcc mi. le 25 incha allah nañ ko daan defee rek lañ koy defee ñu taxawaat ci bu baax a baax a baax képp koo xamante ne yaa ngi ñëw te liggéey tax laa jóg moo xam bool nga mën a indi pour bees wala paan ba ci mm, layukaay yi nga xamante ne ni mooy kubéeri ventilateur yi lañ ko fay soxla moo xam saaku moo xam lépp loo xamante ne mu nga koo indi bu fekkee mënoo indi dara tamit boo ñëwee mën ngaa féete ca waañ ba xel ko moom kenn du fa dem di toog loxoy neen ku fa ñëw ku nekk am nga loo fa war a mën a def kon ñu ngi leen di soññaat bu baax suñu mbokki soxna yi ci liggéey bi incha allah le 25. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen àq di leen baal àq di moom sëñ Basiru yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak njaboot gépp ak mbokki taalibe di ñaanal sëñ Cheikh am Sëriñ Salim. ñu waral jotaay bi sama borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te ànd ak wér ko ñu àndal seen Cheikh Jëmb Fall ak ak nu Baye Fall ak taalibe yëpp sama borom doole ñu taw féexal ci barke Sëñ Saliou ñu fas yéene liggéey Serigne ci tool yi xel koom di ko ànd ak ndawi Serigne Saliou toog ñu ngi leen di nuyu ci kenn ku nekk ci turam ak santam te di leen ñaanal yàlla taw féex ci barke Sëñ Saliou wàllu liggéey xel koom nag li ma ciy wax mooy soññee rek. ndax pas-pas foo liggéeyu Serigne Touba àgg pas-pas ko fa yóbbu kon may soññaat sama bopp di leen soññ ci pas-pas bi ak taxawaay bi ak pësteef gi ngeen am ba ñu tudde seen bopp ndawi Serigne Saliou ñu ànd si ak noonu ngi jëmmi Serigne Saliou loolu pas-pas la waaye mënees na koo gën a taxawoo bu baax a baax a baax baax ah, xeebuñu ko nag sëñ Touba xeebut na wut mm-hmm. waaye dafa baaxoo yoon wi dafa baaxoo soññante mm-hmm. wala yoon wi baaxoo kon maa ngi soññ euh, sama bopp di soññ di leen soññ di soññ bokki taalibe yi may dégg képp ko dégg sama kàddu muy góor muy jigéen di mag di ndaw ku mën a ñëw na nga ñëw ku mënta ñëw na nga yónnee mm-hmm. addiyee ah, xeebut nawut te dañuy dem di liggéey di am ay fan fan yooyu ni fa am dañuy lekk dañuy naan mm-hmm. te lañu fay lekk di naan du sunub liggéey mm-hmm. liggéeyuñu ko dañu ko bëgg ci bokki taalibe yi nga xam ne ñoo am yéene dem te mënuñoo dem ñoo ñu ñoo ñu yónni ñu bokk ak ñoom liggéey bi ci baaxu sëriñ bi. kon maa ngi soññ bokki taalibe yi nga xam ne ñoo ne ci ginnaaw sama ginnaaw yor mbooloo ñoom itam leen di soñ ñuy soññ seen mbooloo ñoom it ñu am seen yokk seen taxawaay bu baax a baax. te nan ko daa defee rek ñu defee ko ne di doole itam di sant sëriñ Cheikh sëriñ Saliou. ci taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci liggéey xel koom bi ba saa su ne mu dina woon ak yëgam ak cofeelam ak bëgg-bëggam ci ñun ak yërmandeem ba di ñu xamal ne heure boo xamee dem nañ xel koom sëñ Cheikh day wax ne moom da job mën a def leen luy nu roog noppalu ngir coono bu nu sonn te mënut a ñëw bokk kook ñun waaye ni nu kon moom mu ngay sonn fa mu nekk ngir xamal boromam ne ko ndaw yooyee ca tool ya di liggéeyal Serigne Touba de mom ñoma bokku ñak wi lolu moom di gëna ko wax nako mm-hmm. ba barki dem ba bama fu mu jé dimanche passé mm-hmm. lolu wax nako ko ne maa ngi yëg seen taxaway dafa seeni di ko ànd ak yeen ba faaw mm-hmm. fek noo ngi fi ci kaw suuf kon lolu ak cant la go xam ne sëñ Cheikh na ma ko ma jottali ko mbooloo mi ku ko dégg na nga xam ne sëñ Cheikh ñu ne ànd liggéey bi ño bokku coono bi ño bokku pas pass bi ño bokku ji kon yalla nak fi yalla bàyyi mboolem jobot Serigne Touba gep barki Serigne Touba kon ma ngi leen di ñaanal di ñaan yalla plateau bi ngeen def sama borom taw feexal ko ba lepp lu ngeen yene liggéey Serigne Saliou sama borom defal leen lu koy suñu jott li euh, serigne ball wax nak ak serigne euh, Cheikh Anta wax ne dañu jaare ci soxna awal ñi lu ci ëpp lolu moy la am da xeyna muju euh, mujj leen ci waye jitu leen ci manam benu dalay dem ak legui léegi mu am ay fan yalla ko sëñ Tuubaa yok a te lu katana ñun ñëpp waye amna dañ doon ànd ak ndaw ba tey ñooñu dem ba nekk ay ma xëy na mbaa ñu jàpp ci dara may ñaan nag ki barke Sëriñ Saliou yéen ngeen di dem ah ba yónnee mbaa ngeen di ñëw di ànd ak ñi ngeen di yónnee ak seen xéewal ak seen pas ak seen taxawaay ndax euh, kenn ku nekk bala yàlla mayee li nga bëgg danga ñëw da nga yónnee bu soobee yàlla ndax gis naa ko ci yéen seen taxawaay yal na ko sëñ Tuubaa teye ci barke Sëriñ Saliou maa ngi sant bu baax euh, comme ni ko Cheikh waxee léegi rek li ma war mooy jiitu dox te bañ a gestu ndax loolu ma Cheikh Mountakha sant su ngeen demee ne ba jàpp ne jiitu googu ma jiitu du dox damaa yenn xëy na loo xam ne jàpp ngeen ne war ngeen koo mën a yenne mbaa bu ngeen ko yenniwti téye ko ba dootul diis kon loolu dama santaat sëñ Tuubaa ndax neexut yombul nga ñëw ne nit kaay jox ma mbaa kaay liggéeyal ma ndax loolu lay nuroo waaye nag sëñ Tuubaa moom moom mbiram moo koy defal boppam nu mu ko soobee moo waral mu tàggal seen xol yi nangu loolu seen jëmm yi bàyyi loo leen lépp lu ngeen jàppoon su waxtu yi jotee ñu wuy si ma fas yéene ànd moon tànk liggéey ba agut du ngeen dëpp du ngeen dellu gannaaw loolu seigne touba tax waye xamna ne man mi taxuma te ni ngeen taxawé non ngeen koy defee sa su nek ci xel koom ak ci Porokhane ak fenen fu moo ne di ligue seigne touba ba barki démb ci gamu gi ci kër sonu ma Mbar ci seigne Mor ma kon ma ngi ñaan seigne touba mu gën no tawfiixal ma borom defal leen magi l'islam ci barki saliw lolé cheikhul khadim ak ci borom touba ma ngi sante ñëpp di soññ nak jëwriñ waa ñi nga xamne ñoo fi nek soxna Mari job soxna Ndey salimi ak eh, ñi and ak ñoom ci liggéey bi di soñ ñëpp daal kenn ku ne lan la jox muy sa sab taxawaay nga jàpp ci te xam ne loolu mooy sab liggéey muy lan waxan rek ku ne ca waañu waañu mooy sab liggéey kan ne ca euh, tool ya tool ya moo di liggéeyam kan ca ndox ma ndox ma moo di liggéeyam kenn ku nekk bu kenn xeeb boppam ca la mu nekk ndax bëggunu dara manqué tey dal yi demee na fa noo xam ne fi ne moomatuñ ci suñu bopp ndax bërki démb rek jëlee nañ fi ñeenti camion ñeenti camion yi ñu fi jëlee ban demee fekk nañ fa ñaar defe naa ñëpp gis ngeen leen ñu toog di nu xaar fanu daal ñoom ñoo ma ko bokk lanu indi ñoom ñoo ma ko bokk ba keroog ñuy ñuy tàggatoo doon taka yàggutit kon nag loolu laa bëgg ñu waajal ko bu nu yemale xéewal bi suñu bopp dama leen wax ne lii nu may jox dan ma koo jox ma di ko joxe waaye moomu ma ko ma jox leen ci ab tegtal daaw njëriñ daaw ma danoo toog ba ni suba la ñu yewi ndax waxuñu ma ko waaye loolu la tollool mburu jeex ba des benn saako am ku ñëw benn taali bi mbokkum taali bi ñëw wóor ma fekk ma ne dafa bëgg dafa manqué kafe dafa naanul kafe ma xelul kaasub kafe jox ko mu naan mu wax ne mu naan ko pare ne sàllaaw de lu nu yóbbu ca daara ja moo nu tax a jóg ma daal di woo Mari Jóob mu ñëw ñu tibbal ko kafe tibbal ko suukar mu dem bi muy dem ba yàgg ma woolu ko mu dëppaat ma ne ko ah ndax sëñ bi abu am nga mburu mu ne ma déedéet ah loolu de it ah, itteewoon ko ma ñu jëkk saako bi di ko ko jox. am ko wax ne ñun yeweegun nu ngay joxe lii fi des. maanaam dama leen di woon sëñ Tuubaa ci li ma ci xam man ndax sëñ Tuubaa neexut a wane bi ma jëlee mbirum bi bipp ko ci moom ne ko man de lii ma fi indi moomu ma ko liggéeyu ba ko kama ko jox xaw ma ko da ko yónnee ne naa ko ko yóbbul kon ku jëkk ñëw ma jox la ko bu subaa bu ñu xëyee toog barki Sëriñ Saliou fa ma toog jógaguma fa oto buru bi gaari sama ginnaaw xaw ma ne mburu la def daal di kor ne kenn jóge ca café ya dem wuy ko mën na bàyyi faalu na jaara laay laaj mën na ko baas xayma bii ci la nekk mën na ko soxlawul sax daal di ubbi wàcc ci oto bi ubbi oto bi génn ñaari saakuy mburu benn bu ne juróom fukki mburu la def te bu bees la njëriñ beesam ndaaw mi daaw daaw daaw kon ñu toogaat nii ren kon bu ci kenn bañ a def dara sëñ Touba lu nu yor moo ko bu ci kenn naw dara lu ma ci jëf lu ci keneen jëf ak bun nan ko xeeb waaye bun ko naw tay bu ma defutoon noonu jombut lolé lañuy xey xëy ndekkee du doy ndax lolé mo matalu won na ndekki waye ban xey amna témir téeméeri yu bees te fa ma toog ko fala tok mu fekkat ma fa ajoy jaam yépp fa jox si barke Serigne sal si barké bay sal ñoo ñaan fal di lu ñaan jam ye yépp fa jox si barke Serigne Saliou